alors ñu ñu dellu si fi ñu fi ñu tàmbale woon maam Birame mooy recrutement yi euh, parce que coow li coow li loolu boo ko waral xëy na euh, maa ngi wax démb ne j'ai l'impression que ni benn benn bombe à retardement la parce que euh, Issa mi ngi koy wax sànq direction yu bari ñan fa nome jël nañ personnel bi ñu yore commencé di xool ndànk-ndànk am na sax ñu commencé di convoqué ñi ñuy liggéeyandool pour xam Pape Makhtar Diallo mi mooy kan lan moo ko fi andi ba diplôme la fiy def la la fiy jógee est-ce que li ñuy xaar moom mi ngi ci ce qui mooy bu ñu commencé appliquer li nga xam ne euh, moom la Émile Charles lu wax léegi mooy ñi nga xam ne dañ fa nekk te defuñu la ñu liggéey ñu jëlee leen fa coow li dina daal di commencé qu'est-ce que le la l'État doit faire les nouvelles autorités pour gérer justement euh, ces recrutements là dal seen kaw. waaw xam nga c'est une question euh, assez délicate puisque quand même ñi nga xamante ni ñooy def recrutement yooyu dañuy sécuriser. le poste de sort mhm. que ki leen fay wuutu du mën a ñëw jëlee leen fa aussi facilement. ay CDI. ay CDI moo ngoog euh, euh, te euh, exemple bu may jël souvent rek mooy la poste nga xamante ne nii demoon nañu ba seen masse salariale toll ci daanaka dix huit milliards alors que seen chiffre d'affaires huit milliards la. loolu li ko waral mooy bu ñu ne boîte bi entreprise bi. wala euh, direction bi cinq cent personnes maximum war nañoo mën a def liggéey bi yëpp ba sax quelque part am ñu ciy def ay euh, euh, comment dire ay heures supplémentaires mais ñu ne cinq cent yooyu duñ ci yem ñu dem recruter deux mille personnes def leen fa mais ça va poser problème ci yaa ngi koy wax ci directeurs yi nga xamante ni ñu ngi doog a jël fonction yow buñ ñëwee ñu ne la am na un directeur boo xamante ni conseiller yi ëpp nañu trente chargé de mission mi ëpp nañu vingt cinq. directeur ab directeur. nga nga naan est-ce que le premier ministre est-ce que am na conseil yu toll noonu est-ce que président sax am na conseil yu toll noonu ñu ne la un directeur am na ko. pour ñu wax ko COUD. waaw par exemple. un mais mais mais mais mais loolu. ay conseil COUD waay. ay conseil mais mais xam nga loolu euh, peut-être que euh, fi euh, fi ñu leen mën a dugal. mooy chargé de mission wala conseiller technique nga xamante ne ni moom euh, quelque part. fortu la <laughs> moom wax dugal fortu la ku ne mën nga ko fa dugal mais en réalité ñañ fay dugal parce que man dégg naa fi ñoo xamante ne nii au départ ay coiffeur directeur bi la ñu woon en en ñu def ko conseil ñoo xamante ne nii euh, mais fañ leen di yóbbu ak li ñu li ñu xam ça n'a absolument rien à puisque tout simplement yow acteur politique nga yaa ngi militer euh, euh, euh, Vélingara jox nañ la benn direction nga ne man sama politique ba à Vélingara pour ma am foofu une base politique il faut ma am ñu ma fa recruter léegi nag nga dem xool ñi nga xamante nii ñëpp jege nañ la foofu nga jël sotti ci direction bi. c'est de la folie ça. mais c'est de la folie xam nga xam nga Sénégal maanaam ñun buñ la nee. ñu ngi bokk ci vingt cinq pays les plus pauvres nga gisul administration nu muy doxee les fonctionnaires de l'État les ministres les directeurs mais danga nga naan c'est impossible Sénégal mënul bokk ci les vingt cinq pays les plus pauvres puisque administration bi dundu gii ñuy dund daanaka Europe sax soo fa demee ministres yi ils ne sont pas aussi bien li ko waral nag mooy maa ngi ko fi doon wax la dernière fois comme bi ñu nekkee ñun à l'école primaire primaire laa wax de waxuma collège waxuma lycée. primaire ñu ne on cache tout c'est l'état qui paye. c'est l'état qui parce que dès l'instant que yaa ngi jàpp ne man mun naa jël ku ma neex mun naa def dépense yu ma neex dans tous les cas c'est l'état qui mais doo am benn problème de conscience. ñenn ñi prestataire de service lañu def avec des salaires exorbitants. mais ay salaires exorbitants. ay ay ay bu dee mënoo ko jaarale kenn mais coiffeur coiffeur bi ma lay wax noonu ne dañ koo jël chargé de mission buñ la waxee salaire am mais da ngay waaru am na ñoo xamante ni ñu ngi nekk seen bureau di xëy chaque jour di liggéey te coiffeur boobu nekk chargé de mission moo leen ëpp salaire. non man boo fi déggee ñu ne am na benn DG bu recruté woon géwalam di ko fay huit cent mille xaw ma ñaata lañ franchement j'avais dit que ni no c'est c'est des connards enfin la c'est des conneries loolu amul. waaye mais booy déglu presse bi ba léegi li ñuy wax noonu kenn dindiwu ko. maanaam maa ngi dégg dernièrement euh, Cheikh Bara di ko wax. état bi daanaka moo amul avocat. Mm. maanaam kenn lijjantiwul état bi. li ñuy li ñuy def mooy naka la ñuy def comme que état boobu moom am nag la boo xamante ni ku nekk. da rek mango ku nekk jël ci loo xamante ni mooy li la neex. naka ngay caser ay nit ñu dem ba nga xamante ne ni dans la conscience collective bu ñu la nomee pour nga am possibilité tibb xaalisu état bi dañ naan sa yaay liggéey. Hmm. aussi simple que ça. wala nga gis benn ministre bu ñu nomee mu ne léegi ñun dañ ñu daan sédd mais léegi ñooy. séddale xam nga état état d'esprit boobu boo ko jàppee te leer na la ne Moustapha yow doo dem créer sa benn euh, entreprise. di xaar ay bénéfice ngay dem di jël gars yi taxawal sa quartier ba doo ko def da ngay xool ñi nga xamante ni dañoo performant parce que leer na la ne lii nii sa ñaq la yow yaa liggéey ba sonn teg ko sur place mais bu dee état bi tu dis sax comme man directeur la dañu ma nommé xëy na fii ma toog nii du ma fi def deux ans naa profité le maximum possible donc donc Mame Birame su ma déggee en résumé nit ñi euh, Sénégal état d'esprit bi ñuy demee mooy état wala administration liggéeyuñ fa pour jëmale réew mi kanam mais dañ fay liggéey pour feesal suñu. seen bopp tout simplement. intérêt maanaam euh, intérêt public. sénégalais daanaka xamu ko. bañ ne ko ba dañ naan mbeddu buur lu la neex tuur fa. c'est un vrai problème c'est un ah, moo tax sànq ma ne la ay réforme baax na et tout ça mais tant que bopp nit ñi changé wu dafa am dafa am deux choses yu ma bëggoon nga leeral ñu ko bala ñu avancé ak Pape Makhtar Diallo benn bi mooy euh, li Mame Birame wax am na ñoo xam ne dañ leen recruter amuñu compétence yi amuñu qualification bi tout mais ñu sécuriser poste yor de telle manière que tey boobu man su ma nekkoon DG bëgg leen fa jëlee c'est un véritable problème mooy am ay CD e yu demee noonu. Euh, euh,